motif la euh, jeunes yi war a mën a euh, sukkandiku rek bay continuer di jël euh, li nga xamante ni moom moo di yoon bi honorable waaw xam nga mbir moom xëyul rek sotti mm-hmm. Mm-hmm. dëgg fa yàlla maanaam mm-hmm. fan am weer kilo ceeb bi ñëw jël ñetti dërëm visa yi micro visa yi aussi ñu jënd nekk maanaam yow kay. micro micro. rey nga sa bopp rey sa bopp rey sa bopp rey sa bopp góorgóorlu góorgóorlu ba nga xamante ne am na. Mm-hmm. ah man de pour man. Mm-hmm. man de pour man moom. Mm-hmm. fi nekk nii gunge yi nga xam ne ñoom ñoo fi ne ñu indi ay réformes six mois un an un an et waaye nag réew mi moom nit ci genn xeetu nit ci koo xamante ni soose. kenn mënu xaar. ndax ñu fi nekkoon ñu ba. Mm-hmm. affaire bi dafa mité mm-hmm. dafa metti mm-hmm. am na ci laal lay nii ay soxna yoo xam ne dama ne ñoom ñooy jaay seeni or jox seeni doom ne leen dem leen dëgg loolu xam ne ñoom ñooy jël seeni xaalis jox seeni doom ne dem leen loolu nag dañ koo mës di ci rajo yi ak ci télé yi bàyyi leen di buux xale yi ci géej gi mais soose doomu aadama mooy am foo xam ne gis nga bu fa xasee ba yegg li jaara wax li li naa wax léegi rek maanaam nekkul ne question wu gëm a di yàlla la wala xale yi dañuy xaru mais xam nga nit ku dem ba perte espoir. <laughs> désespoir. nit ku dem ba perte espoir mais weesul yow nga am benn magasin boo xam ne yow boo ko jaayee di nga dajale lu toll ak deux millions cinq cent trois millions te yaa ngi ciy joxe añ reer ndékki mais nga dem jaay ko pour jël yoonu yoonu yoonu bitim réew bi ñaata doomu aadama ñoom ñoo fi jaay seen i billet jaay seen taxi jaay seen nangam sangam ñu ne leen diw boo ko joxee 4 millions dina dina la lijjantil visa wala 6 millions daf lay yóbbu bitim réew mooy gars yi nii di di di di yóbbuwaate doomu aadama yi. Mm-hmm. ñaata nit soose ñoo jaay seen i billet parce que kooku day dem ba ci yàgg. Mm-hmm. di gis chiffre d'affaires am di dégringolé di daanu. mu mm-hmm. leer ko ne lii ma gis nii fii ba un an. bu lii dakkulee sama bitik bi dootul exister. comme que nag mi ngi exister ba fii te instant bi yor naa fi lu consistant lu xaw a takku loo xam ne bu ma ko wanteeree gën a gàtt waa ji dina ma liggéentil ma dem bitim réew bonjour lay dégâts te bitim réew tamit soose waa diaspora bi ñoo ngi seetaan de. Hmm, soo toogee ngay wax naan ay waa bitim réew dafa metti xam lan mooy la première réaction des jeunes sénégalais waa ñoom ñoo ñu ngi naan dafa metti dafa metti waa nañ ñibbisee. <laughs> <laughs> dafa métti dafa métti waaye léegi moom nañ na na ñibbisi ne lan lan la ñuy xaar pour ñibbisi te mhm. effectivement foofu dafa mittee mhm. yàlla moom moo yor wërsëg soo se am na ay tubaab yi yëlewaat ah, waaw waaw <laughs> bari sax waaw <laughs> tubaab SDF am na tubaab yu toog ñii yor seenu pot mhm. ndeysaan sama premier tukki Italie 2008 jóge fa jël train di dem di dem Paris ma ànd ak ñoom soo sa njaay gars yi ma ne xaaral ma nit ku ñuul sarax tubaab xaaral ma sarax tubaab sama sama billet euro yooyu ma yoroon noonu ay benn benn kii benn kii cinq euro ñëw ma ne ko caske pot ba naan gars yi sarax naa tubaab nit ku ñuul sarax nit doon ab dof def ko événement def ko événement <laughs> mais boo toogee fii nga ne pour pourtant ci dëkku tubaab yi dafa am ay ay sans domicile mm-hmm. mais dañ naan non mais attends est-ce que kii li muy wax nii am na parce que léegi-léegi aussi ñoom li ñuy wax la destination Sénégal mais destination France noonu la amee. destination Amérique noonu la amee. Hmm. dëkk yi léeg-léeg ñu war la loo xamante ni nii ci seen film yeeg ñoomin seen fekk loolu en fait fiction la. Hmm. nekkul la rek. ça se passe au Sénégal li ñuy dund réalité bokkul. dama seetaan benn benn film fii nii Sénégal la quoi mais boo gisee kër gi ni mu mel. nga gis ko nii ci Facebook bi. kër gaa nga taaroo taaroo taaroo waa ji dugal fa du toll ñeenti soxna ma ne ki bind lii rek fii la daanoo tu peux pas être mm, mm. te yow xanaa doon yow mënoo sa soxna bu nekk nga wut fenn foo ko dugal pour jàmm mën a ne ñu ne ci kër gi rek di reyante saa yi boo ubbee Facebook bi ña ngay reyante suba ngoon ki ëmb sax ña ngay yàq biir ba ña ngay dóor nii yow nga mu mu mm. maanaam li ñu lay jaay ak li am waaw comme yàlla ak yàlla léegi nag booy aussi duñ fi toog beneen bi tamit soxna Amina. mënoo jël alalu jàmbur ba pare jaar fii di daw te du la topp wax nañ ko fi démb. jën yi bañ ko jëlee jox ko tubaab yi jël pétrole bi jox ko tubaab yi jël zircon bi jox tubaab yi euh, jël phosphate bi jox tubaab yi jël suñu ressource. matière première ah. Mm. jël or bi jox ko tubaab yi ak naar yi mais lu tax booyoo duñ topp tubaab yi <laughs> bu ma ko sa téléphone bi jaar fii ci site bi di daw dañ may dàq jëlee ko gars yi dañ may topp. est ce que xam ne booy seen alal jooju ñu jël di ko di ko yóbbu noonu est ce que xam ne ñu ñu mm-hmm. alal ja lañ toppi mm-hmm. mais alal jooju yëpp bu ñu ko fi xool xoolal ñetti fan yi ñuy wax ne dañoo limité bateau yi ci géej gi nangam sangam mais xale yi ne ci biir ndox mi ñoom ñoo jóg def ay vidéo di mm-hmm. jubilé ne trois jours lañ ne gars yi arrêté leen trois jours xool leen di géej gi mel. am na ñu ne seen frigo daa fees dell ak jën ba amul place ndox. dootul am place ndox frigo yi. <laughs> ndax lépp ay jën la. <laughs> mais parce que yow nga jël yow génn wàll géej gi. chinois yoo xamante ni nii sa bu ñu ne cas sànni seen file yi. <laughs> yow looy ah. yow looy napp ci ñetti weer. waa ji ñëw ci benn sànni. benn sànni la koy jàpp. benn sànni gayeen sa nga gis ko bëgg a indil tolloo ñaar fukki ton. soo te dañuy xoos ba xoos. dañuy raakale taatu géej xam nga raakale raakale. Ah, ñun ñi nga xam ne ñun menace ñun célibataire yi. mais booy ménage raakale mhm. dañuy xoos taatu géej gi bu fa bàyyi dara léegi nag bu ñu yëkkatee après ci la ñuy sànni débris rek yu ñu soxlawul rek yooyu ci lañ koy sànniwaat. xoolal c' est vrai li muy wax. doy na war sax ñoo ñoo rattrapé ko mais euh, bu fekkante ni euh, euh, philosophe dañuy wax naan désespoir la est ce que tey jii bu fekkante ni nguur bu bees bi nga xamante ni toog nañu am ci moom yaakaar mënuñu ko woon may tuuti le temps de l' action avant ñuy recommencer war lu ni mel. bon xam nga Amina. désespoir bi li ko fi indi dafa yàgg désespoir bi nekk fi aussi lu yàgg tey jii am na ñoo xam ne xaaratuñu dara ci état am na ñoo xam ne bokk nañ ci xeex bi xeex nañu pour régime bi changer tey tey tey tey tey boo leen tegaloon visa ñu ne la damay dem am na ñoo xam ne xeex nañu tey tey tey tey tey tey boo leen tegaloon gaal ñu ne la damay dem mais toujours comme li nga wax sànq. mbir boo koy jàngat dangay xool origine ba maanaam fa mu tàmbalee te origine bi fekk si nga ma sax origine du mal lii dafa nekk benn mal boo xam ne c'est un mal profond malheureusement te ñi fi nekk wala ñi fi jotoon nekk dafa am lu bëri luñ ci am comme responsabilité léegi nag comme nga ni est-ce que jotul ñu may nguur gi pour espoir ñëwaat. le temps de l'action xam nga ñu bëri ñi koy def comme li ma wax xaaruñu dara ci état mais ñu bëri ñi koy def ñoom yaakaaruñu solution bi ci état la nekk parce que dañ naan man su doon damay taaba taaba fii di liggéey manœuvre ñi may fay bëccëg mille man bëccëg mille boobu noonu heure yooyu may liggéey mën naa ko fay ko fële saa à dafa am benn euh, esprit bu ñu xaw a am par rapport à la réalité occidentale différente de suñu réalité moo tax gars yi day am ñoo xam ne du gis lu dem. man gis naa koo xam ne dafa dajale ba am 4 millions mu ne day def <laughs> ma ni ko saa yi 4 millions doo toog fii mu ne ma fii da ngay toog nangam ak nangam nag wala dañ la koy leb wala lii ak lii wala lii ak lii wala lii ak lii c'est-à-dire que espoir bi du rek ci nguur gi mais espoir dafa dem sax ba suñu configuration sociale daf ci participer parce que yow bu dee yow soose mi daf koo leer ne lii nii bu ko ubbee sugu day nekk ci kawam du ko may jàmm da koy taañaañaan day préférer ne plus investir fii nii dem am fa au moins jàmm. même su faroon am moitié donc réalité yiy poussé nit ñi ñuy dem dafa bëri. Mhm. surtout nag réalité sociale boobu moo tax ma jàpp ni war nañu amaat beneen esprit social. parce que tey jii nii dañuy nekk ci société yoo xam ne euh, du du peut-être sax ci biir foyer bu mën sa yaay mën na bañ a am wujj mais au-delà parfois da ngay gis say mbokk yaay wala ngay gis say mbokk euh, koo xam ne yéen a bokk famille mu lay taañaañal di la teg yu metti parfois yow da ngay souffrir intérieurement. ba doo ko mën a supporter mujj gi da naan sama doom na fi jóge sama doom na dem ndax rek ma am way mhm. donc réalité yi nga xam ni ñuy pousser nit ñi pour ñu dem dafa bëri man nag bon peut-être nag gis-gis yi bokkul man jàpp naa ni ku ci nekk mën nga toog sa réew tekki mais tamit comme ni ko monsieur le maire waxee su dee suñu politique intérieure dafa xaw a euh, échec ba nga xam ni nit ñi jël nañu suñuy ressources jox ko les occidentaux normal serait pour les sénégalais ñu dem topp ñooñu parce que seeni i mbir fa la nekk parce que dañuy yaakaar ni fa la liggéey bi ëppee tey jii ni démb soose wax na ko euh, je pense que bu dee napp gi dafa am nuñ ko restructuré waatee ba fexe ba jox ko sénégalais day am benn cercle vicieux boo xam ne ñoom ñëpp dañ ciy bénéficier wu. ba ci kiy jaay carburant bi da ciy bénéficier ba ci kiy waas def ci bénéficier wu ainsi de suite donc yaakaar naa ni certes nag mën nañ xaar euh, espoir ñëwaat mais tamit euh, du réyalité état kese moo war a tax nit ñi di dem mais dafa am beneen réalité aussi mu ngi koy wax benn réalité sociale bi nga xam ne nit ñi. ñoom voilà pression sociale bi. gëm nañ ni il faut ñu tukki daal. pour mën a débarrasser wu ci pression boobu gëm nañ ni aussi foog ñu tukki pour mën a parvenir à la satisfaction de leurs besoins. Euh, ñenn ñi ñooy jël seen or jaay ko jox seen doom. waaw mhm. mais am na ay mbokk yoo xam ni ñoom ñooy dundaloo seeni doom une pression mhm. familiale une pression sociale. Mhm. financière terrible. terrible ça c'est vrai. Uh-huh. oui mais mais yow suukaru mais yow suukaru koor yi suukaru koor yi suukaru mais mais man man man de man sama soxna du du yóbbu suukaru koor suñu kër mais boo ko waxee boo boo ko waxee ci télé dañ naan non kii. tradition la mujjee doon. waaye ma ni tradition wu caaxaan. teraanga mhm. teraanga mais ngay gis kenn koo xam ne danaan su ma sañoon doon soxna kii. Mhm. waaye dë la laa ñaari jabarit ku nekk bii. xool nekk ak say mag. Mhm. soose. Mm. da nekk ak say mag ak say rak. yow sugu yàlla li mu dogal ci yow man dogalu ko ci man. Mm. yaa ma ëpp teraanga mm. fukki junni yoon jolle. dëgg la man ma nekk sama nga loué appartement ma loué fële appartement wala ñu ko benn kër sa soxna si boppam yor cent mille francs ñeenti gorosu suukar ay dàmp tisi boole wàlla ji sax nag ay jën ak ay nangam sàngam yëpp ñëw jox ko maire bi mm-hmm. man sama jabar man moom deux mille cinq cent bu ma ko jox rek pour mu jënd paquet suukar pour jox ko sama yaay rek problème la mais bonjour lay dégg léegi nag yow bi nga xamante ni nii yow xam nga ne am na noo xam ne yàlla bindee na la ko lëkkale na la télé wala léegi li leen nay mën a ne sa jabar mag yooyu yëpp ngeen nga paqueté gaayeen say na jox lañ suñu yaay kenn du xam kan moo joxe lii kan moo joxe lii. wa ila ku ci nekk nga jëndal ko joxe ndax wërsëg yu tolloo wa ila sa jabar du fa yóbbu suukaru koor mm-hmm. saay boo bëggee mu teraangaal gorom dina ko def. te ngaañ du am. soose ñu bëree bëree bëri lii leen di génnee ci réew est que xam loolu. ñu bëree ba waaye non mais attends. Mm. waaw waaye tamit am na ñoo xamante ni personnellement ñoom ñoo jël seen bët rek teg ko ci nit kii li mu am dama ko war a am am na ñoo xamante ni ñoo teg seen bopp yenn yenn pression sociale yi euh, soo sa nit boo xamante ni euh, koo xamante ni tey jii dafa bëgg a jóg dem ngir dem. Mm. est-ce que kooku tey état mën na ko trouver solution si kenn mënu ko téye. Mm-hmm. xam nga <laughs> gis nga. bëgg a toxu ak ku bëgg a tukki. ak ku bëgg a xaru. Ah. merci bi tey. ah bi kañ la. yëngu nga ne Ibra jël na day jël soxna yëngu ko <laughs> suñu réalisateur bu mag bi. <laughs> man de keroog laa toog comme ni ma yóbbu naa góor. mariage bi kañ la Ibra Ibra. déedéet kay loolu dina bëgg nga. macha allah ah Souleymane eh? doxalal Souleymane Thiam de su ma lay takk jabar. nañ doxal suñ benn boy Souleymane Thiam. Hmm. suba suba suba de lay takk suñ benn dëkk. macha allah. yàlla léegi daal léegi seen group boobu. Hmm. Euh, sugu moom moo ci des. waaw. sugu mi toog ak Pape Fall jarul sutura de am na yoo xam ne jarul sutura am na fu islam waxee ne diw na ngeen ko suturaal mais am na yoo xam ne hmm. il faut les forcer waaw góom sax da nga koy faj moom ah, pour mu ah, kii dana am léegi rek insha allah am na aussi Amina gis naa ku commencé ñu commencé rang ci moom waaw loolu loolu nii nii nii nii Amina mii kay suñ doom la foccee koogul ci waaw gaa yaa waaye nag dañ ko bàyyi ba mu màgg gaa yi daf leen nànk naa day jàng daf leen nànk waaw Eh? <laughs> en tout cas gis nga Amina. li nga wax léegi gis nga nit ku ku ku bëgg dem koo xamante ne vraiment dem rek la gis kenn mënu koo téye. dëgg mhm. kenn mënu mhm. kooku nag responsabilité am la moom bokkut ak ki nga xamante ne mhm. moom dafa am ay métit ci réewam bëgg avenir bu baax ba ne day dem mais dem bi li ko indi xam nga la désespoir bu metti bu jeunesse bi am loolu kese la parce que seen réew yi ñu ngi fi. ñu am liggéey bu baax liggéey bi sax salaire bi du ko dégg boo ko amee donc tey sa sa sa sa sa sa avenir mënuloo ko sécuriser à cent pour cent xam nga li ma wax mm-hmm. il faut que nos gouvernants surtout ñu fi nekkoon nangu ne seen politique de jeunesse moom dañ ci échoué. ah, ah, ah. ah oui mm-hmm. teg nañ fi nag programme bu du programme u jinne bi ci mujj mooy xëyu ndaw ñi moo tax tey damaa kontaan bi ma gisee benn yéenekaay mu ne dañ ko war a auditer wax na dëgg dañ ci dugal xaalis bu bari ay jeunes yoo xamante ne nee na dañ leen dugal ci xëyu ndaw ñi ba tey jii may wax yow kenn fayu leen. Mm-hmm. li avec ça naka lañ mën a retenir jeunesse bi. Mm-hmm. tey rek maa ngi lire tout à l'heure 450 milliards boo xamante ni. xëy ndaw ñu la ñuy demander. voilà léegi ñaata agence lañ fi ubbi bu doon gérer emplois des jeunes. Mm-hmm. financement. mais fan la mujj yooyu. lu tax ñu teg yooyu ba pare nit ñi di gën a dem loolu rek day day wane ni lii. dafa dafa dafa échoué échec la. ay pej ay. Euh, fi fees fi dell na. donc. te loolu nag li ko indi Amina. gis nga ñun suñu réew yi dañu am problème mu leadership cest à la vérité mooy suñu gouvernants yi ñoo baaxul. parce que ñoom ñooy bàyyi ay nit jóge bitim réew fii les ressources appartiennent au peuple. mais dañuy bàyyi ressource yi ay ay yeneen i nit ñëw di ko jël di ko yóbbu li sa xam nga ne tey ku jël sa ressource yóbbu bitim réew exporter na sa main d'œuvre exporter na sa emploi moom bu ko yóbboo dëkkam ay jeunes am lay jox liggéey mm-hmm. léegi yow mi jiite réew mi nga sàggan ba kooku jël ko yóbbu ko dëkkam jox ay jeunes liggéey yow say jeunes réew di chômer. Mm-hmm. ñu def ba duñ jël gaal gi. Mm-hmm. mais tamit yaa soose ci côté boobu hmm? am na ñoo xamante ni ñoom ñooy teg ba tey jii Ablaye Ndiaye ba nekk Europe mi ngi fayeeku 2000 euros wala 2500 euros man ma hmm? nekk fii donte am naa liggéey sax mënuma am à la fin du mois 400000 euh, wala 500000 donc naa dem rejoindre ko par force pour mën a am li mu am am na ñoo waaw ñooñu ñooñu xëy na dafa am loo xamante ne xëy na ñoom it dañoo njort rek mhm. waaye wallaay bu ñu xamoon Ablaye Ndiaye la muy dund foofu mhm. Ablaye Ndiaye waxu leen lépp de mhm. déedéet affaire bi yombut de Modou Modou seen njaboot yi ne fii gërëm leen leen bu baax a baax bu ngeen xamoon coono yi ñuy daj foofu pour yónnee leen xaalis mm-hmm. bu metti fajar la ñuy yeewu duñu duñu yendal mm-hmm. donc boo leen ne da ngaa bëgg a dem parce que gis nga ne kii tabax na kër gu rafet am na oto mais da nga xam ne que la ko amee mm-hmm. da nga yaakaar ne liggéey la ko amee mais mën na ko amee neneen noo xamante ne yow xëy na jàmm nga koo def donc lépp ngi ci li gën daal mooy gis nga sunu sunu gouvernant yi surtout ñu bees ñi et puis man acte yi ñu yi ñu jot a posé bi ñu léegi man gën naa ne mën na joxaat jeunesse bi espoir. Mm-hmm. bu ñu xoolee foncier bi rek tey lépp loo xamante ne baadoolo yi jëloon nañ ko def ko def ko seen moomeel état bi taxaw na pour delloo ko askan bi mm-hmm. mooy li xew mbuurkat ak feneen ak feneen ak feneen. Mm-hmm. jën yi gis nga tey commencé mu génne les les les les navires autorisés te licence de pêche yi gën naa ne ci audit lañ jëm. donc nos pêcheurs yi amoon coono ci géej gi danga deñ li ñu gën yaakaar mooy suñu pétrole ak suñu gaz man gën naa ne ñi fi nekk ñi fi jógee day wax dëgg yàlla rassuré wu ñu woon sénégalais yi très sincèrement mm-hmm, mm-hmm. parce que le simple fait que ñu ne rakku njiitu réew mi laal na ci bay tudd ay six mille milliards dëgg la am dëgg loolu rek tey na xel uh-huh. donc tey ressources yi muy pétrole muy gaz muy géej gi muy foncier muy lépp bu ñu ko delloo askan bi mm-hmm. askan bi ñi bëgg a toog dinañ toog liggéey parce que nag man gën naa ne réew mi nit mën na fi juddu. màggee fi jàngee fi tekki fi. am liggéey bu décent toog ci réew mi waaye nag bu dee yow nag dem rek nga gis nag wax dëgg yàlla kenn mun naa tee nag. en tout cas ku ku ku jóg ngir bëgg a dem ndax perdre espoir boo demee ba am espoir war nga mën a taaxirlu tuuti xool ba xam euh, dina la indi waatal euh, raison bu lay mën a toogal am déet comme li may wax rek le temps de l'action nañ ko may son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, peut-être que di am par rapport ak li nga xamante ni moom lañ doon gis ci nguur yi passé ndax bari woon na ay annonce yoo xamante ni doonoon nañ ko def bari woon ay projets yu doon def mais ñu ci bari daal dañ doon wax naan mënu woon yegg si ñoom ba ci li nga xamante ni moom moo di deer bi sax ñi dañ naan ngir nga am euh, financement boobee daanaka di nga di di nga suul bukki di nga sulli bukki di nga def lu nekk te du la sax xeeñ euh, fenn euh, ñu daal di ñëw rek ci li nga xamante ni aham kii Amina mhm. balaa ngaa jàll ci beneen point li soosee doon expliqué léegi ci lu jëm ci wàllum liñ naan y a pas de so métier mhm. xam nga yenn position yi boo fa toogee di wax dafa am yenn ci ay jeunes yoo xam ne mhm. dañ naan là où il se trouve fi mu nekk nii moo tax muy waxee nii waaye ñun fi ñu toll nii bu doon moom moo fa ne du waxee noonu hmm. Amina en 1997 ak 98 yëpp deux ans yooyu dama doon dem vacances fii ci ndàngaan sàmb gi ak marlooj ñu denc sama yaay gis nga <laughs> sama magu yaay bi xëy rek nañu nawetaan yi ngeen topp hmm. saretu mbaam bii doo leen ko jël soose. Hmm. yaag seex mii man maa ko mag tuuti rek. Hmm. moo mag tuuti waaye man nijaayam laa. Hmm. moo mag tuuti de sama benn kii jarbaat mais man nijaayam la yaay mooy sama mag dégg nga loolu amee na. suñu magu yaay nañu. jël leen saretu mbaam bii te bàyyi nawetaan yi ngeen topp. waaw boo leen di ñibbi yéen bu vacances yi jeexee di ngeen am loo yóbbu Ndakaaru Gueye. mu ngi fii Géejawaay moo kii boo commune Waxirane. Uh-huh. ma ne ko ah. waaye suñ ko doon moo yor sareetu mbaam bi soose jox ñu sareetu mbaam bi nañu sareetu mbaam bi. takk leen ko takk leen ko. takk leen mbaam fii ndox campement. di ko yóbbu fii Ndangan Samb ndax fee ndox mi dafa dafa mel ni lu lu lu lu am xorom. Hmm. nit ñi dañuy jaay ndox. Hmm. ngeen di tibb suuf tam di ko yóbbu fii chantier. mën ngeen di ah, am journée. cinq mille francs mbaam bi am borom mbaam bi am ngeen ngeen am. borom mbaam bi ci boobu suñ goro la non bu ma ko defee ñetti pàcc li ngeen di am dootul bari <laughs> léegi naa ko def jaari pàcc rek benn bi yéen. benn bi mbaam bi. Hmm. léegi kon di nga am journée deux mille cinq cent. Hmm. ma ne ko mbër nañ takk mbaam bi pour root rek jaayi ndox. Hmm. ay gone lañ xam nga. 97 aussi tey kooku wax mu. kooku 97 am màggetaguma woon comme nii. waaw. Mm-hmm. saa yi xam nga lu ma ci tegaat. waaye yow yàlla tere. ay takk sareetu mbaam. jaay ndox di ma romb fii. jaay ndox di ma retaan. yow nga ne ko wóoyee. waaye yow xale yu jigéen ñi gars yi romb ñu. parce que temps yii. xam nga ay kii rek da ko séeréer yi